pour yow Amadou Ba lan moom mooy avenir am si biir coalition wala biir APR. non Amadou Ba na defarwaat rek. est-ce que mën na defaru bu fekkee Macky Sall muy fii. mais mais mais xam nga des fois euh, man du ma du ma juger nit te du ma accuser li ma wóorul damay dégg gars yi ñu naan Macky ak euh, Amadou Ba dañoo am problème. et cetera problème. non man personnellement gisuma ko te man du ma wax lu ma leerut bu dee am nañ problème man gisuma ko man. mais yow peut-être da nga sore jigéen wala ah, mun na nekk loolu. mais ah, man nangul ko ko <laughs> mais man sama conviction personnelle laay wax. parce que tamit du wax fii loo xamante ne nii maîtriser wu ma ko. mais man li ma gis ak li ma xam mooy gis ma ci problème. ba sañoon ma ki diriger wala mu retiré wala amul ba diriger ba sañoon nan lay demee. ah l'essentiel daal kenn moo mën a diriger. mais am nga sa xalaat quand yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir. mais bien sûr man maa kan moo diriger benn bokk yaakaar wala APR. Euh, ki ko war a diriger non loolu ça dépend euh, parti parce que te sànq kii euh, wax na ma ko ñu ngi defar waat te bu ñu defarwaatee ba pare ci la ñuy xam fan la ñu war a mën a dem. mais am na sa avis personnel sa position personnelle. non bon sa gis-gis. mais war a parce que élection moo jël deuxième. bien sûr moom moo war a diriger man bëgg dem retraite quoi. waay sama conviction personnelle na Amadou Ba na Amadou Ba. Macky Sall dem ah, ah, retraite. sax comme am na yeneen yeneen euh, fonction yi ñu ko. Ah, retraite lañ koy tuddee ah mais non.